boo xam ne maanaam li nga xam ne nag moo ci nekk Sénégal yi war nañu ko xama ndax ministre bi ñu dénk wàllum tourisme moom moo jàppale ay kona ba ñu jox ko lu toll ci cinquante yoo xam ne amul benn garantie bu tax ñuy wax boo xam ne daan na cay te nag fi nga xam ne moom lañ ko jox cinquante cinq hectares moom ay kona benn hectare rek maanaam ëpp na benn milliard ci sunu xaalisu réew yéene kaay gi di réew mi moo ci xëy ba mu yaatoo yi ni nga xam ne moom lañ leen dëbbee li njaa ak ñu leen naxee ak ministre la teg ba di ko jàppale ba ñu jox ko cinquante cinq hectares yoo xam ne amul benn garantie bu tax ñuy wax wax ci la réew mi quotidien daal di xëy ñëw nee na loolee lu garaaw la yéene kaay gi de la Soleil ca mu njëkk ma ministre Moussa Baldé nee na campagne agricole 2022 2023 lu toll ci 4 millions de tonnes céréales la ñu visé première phase tournée bi ci la ko xamle ginnaaw bi mu jaaree Tamba Kaffrine ak Kaolack yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na nag taxawal ab gouvernement jamono ji mbir yi na lool lool lool ci Macky Sall ñenn ci askanu Sénégal nag ñoo ngi laaj waa Macky Sall mi nga xam ne moo war a taxawal ab gouvernement ba léegi de lay am ci boppam moo ci am ak làmbatu ak taf yëgal tâtonnement loole la journal bi xëy di laaj yéen kaay gi di Vox Populi Babacar Ba bu forum justiciable moom nag nee na dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dañu ko war a àtte mu daal di jeex yéen kaay gi di Direct News nee na élection député yi bi mu jeexee ba léegi Macky Sall waxul te nag Macky Sall bi élection yi jeexee waroon naa jaajëfal bu baax a baax sénégalais yi nga xam ne maanaam dem nañu voté si jàmm ak salaam maanaam maturité bi nga xam ne askanu Sénégal amee nañu ko ci élection législative yi loolee Macky Sall waroon na ko war rafetloo waaye nag ba léegi yeyul yàbbi ci mbir moomee mbaadu nag dóor yee metti ab laaj la journal bi di direct news moo xëy di ko laaj ah en tout cas li am ba de sàll Sall moom leer na ko ne waa bitim réewa ah ñoo ngi koy surveiller bu baax a baax ah yéen a kaay gi di bés bi xëy di ñu xibara naan ñu Karim Meïssa Wade moom nag woon na député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Wallu daal leen di jaaj jaajëfal bu baax a baax ci résultat yi nga xam ne am nañu ko Karim Wade doomu Abdoulaye Wade bi nee na waa Wallu Sénégal jamono ji nag waaj leen bu baax baax a baax tenez prêt yéen Karim Wade jàjji na leen a nee na leen animé leen parti bii di PDS ci wolof yu leer naññ nag ci la leen ko Karim Wade waxa maanaam wolof yu leer naññ la Karim Wade doon wax ak ñi nga xam ne ñooy député yi bokk ci wàllu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Woré Sarr journal bi nee na Karim Wade nee na député yi yàggatul dara dinaa ñëw ci réew mi yéen a kaay gi di leen seko ñu xëy fekk fa Bokar Jongo moom na cadre APR la di militaire ca diwaanu Parcelles Assainies nee na bi nga xam ne moo nar gën a ngande erreur nar a gën a ngande ci politique Sénégal wala ci Macky Sall ak benn bokk yaakaar mooy jël Pape Diop di ko jiital sa assemblée nationale loolee moom bu ñu ko defee mooy nekk erreur bi nga xam ne dina rëy ba nga xamante ni maara day taali te nag musiba mabba kumba gu rëy man na cee am li am ci yéen kaay gii di l'info mooy Pape Moudou Fall directeur de l'emploi moom nag nee na Macky Sall maanaam ci premier mandat bu cinq ans la nekk nee na Macky Sall benn mandat la amagoon mandat de cinq ans ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa Birahim Seck ba Forum Civil la nee na nag modification bi nga xamante ni def nañu ko ci code des marchés Petrosen na leen yéen moom maanaam lu jëm ci wàllum code des marchés seen nga ñi nekku ci loole nag giraawaali la te caxte li nga xam ne mooy constitution bi la Birahim Seck nee nag lii mooy ndëngate gi nga xam ne juree na ba jéggi tayoo te nag dañoo gis ne waaye élection présidentielle jubee daala ñi nga xam ne ñooy sunu njiit yi di saax-saaxe li nga xam ne mooy code des marchés ngir nag amul xaalis ngir nag suqali ay entreprise may leen xaalis jox leen xaalis ci anam boo xam ne bu dëppoowul ak yoon la kàddu yi Birahim Seck la yéen kaay gi di alerte ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekk Macky nee na tappale ak caaxaan yi nga xam ne moom la waa Benno Bokk Yaakaar nekke léegi tey mu jeex ndax assemblée nationale danañu fa amal ay enquête parlementaire ci mbir yu bare bare bare ndax building administratif danañu fa amal enquête parlementaire lu jëm ci wàllum engrais bii nga xam ne ñoo koy pasar pasare danañu ci ubbi enquête parlementaire lu jëm ci wàllum jiw wii nga xam ne maanaam ñoo koy pasar pasare danañu ci ubbi nag ab enquête parlementaire lu jëm ci wàllum plan décennal inondation yeeg milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci ubbi ab enquête parlementaire lu jëm ci wàllum nag joxe bloc bu Rufisque jox ko waa Total bloc bu Rufisque boobee loolee dana ñu ci ubbi nag ab enquête parlementaire lu jëm ci wàllum géej gi ak licence de pêche yi ak nag caaxaan yi nga xam ne moom la ñu ci amala loolee tamit danañu ci ubbi nag ab enquête parlementaire du samay kaddu kaddu yi Mamadou Lamine Diallo la ma ngi ci yéen a kaay gii di alerte yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ab jàngalekatub alquran moo dëbb li njaa détourné lu toll ci quinze millions yéen a kaay gii di bés ñu xibaar naan ñu accident bu métti moo am ca diiwaanu Bargny ab bus akub camion ñoo mbëkkante ñeenti nit ñoo ci faatoo yéene kaay gi de la Tribune nee na accident yi jamono ji dafa daal di takkarnaase ma ngi mel ne tulleeg màlle maanaam fukki fan ak juróom ñaar am na lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay nit ñoo xam ne ñoo faatu ci ay maanaam bis bu nekk daal kenn faatu ci accident yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Linguère nee na dafa am benn père de famille boo xam ne moo rey doomam daf ko assassiné yéen kaay gi di libération nee na kii nga xam ne moo assassiné doomam moom nag Léna Gomis la tudd am na lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom cay ata doomam ji nga xam ne moom la rey assassiné ko Mamadou Sow la tudd amoon lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar yéen kaay gi di sunu lamba nee na combat am